waa Touba Gueye ñu ngi leen di di leen ziar di bu baax a ngi jégalu vraiment ci temps bi nga xam ni jël ngeen ko di ñu xaar waaye yàlla dafa def tey ñu am ay dog-dog mu xaw a naqari yoo xam ni moom moo yàq suñu programme ndax dañoo xëy Thiès suñu benn mbokk militant wàññeeku ñu ñëw euh, Thiénaba tamit fekk monsieur le maire am dëkk loolu moom moo xaw a jaxase tout programme bi mais ñu ngi rafetlu vraiment temps bi nga xam ni jël ngeen ko di ñaan yàlla mu sotti ko ay yiw yu bare bare bari xam nañ seen cofeel ak seen bëggeel ci Pastef loolu rek moo tax. ñu mën a am lii ah. ay ñoo xam ne jox ñu leen xaalis ñu toog di la xaara xaara xaar bon ak lu mu gudd gudd moo lay wan ne mbir ñuy def ah. Sénégal te ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax ni ngeen teewee mais comme ni nga ko waxee la rek message bi benn la dañoo am ci ay élection yu am solo yoo xam ne dañ koy war dem. te président Diomaye ak premier ministre Sonko yaakaar nañ ci bu baax surtout yéen jigéen ñi ak xale yi li ko waral mooy ñun ñëpp a bëgg réew ku nekk ci ñun am nga doom yoo xam ni yaa ngi ñaan yàlla su màggee am liggéey ci réew mi ba mën ba laa noppal ku nekk mu ngi ñaan yàlla bu bëggee faju bu demee hôpital yenn coono yi mu doon am dootu ko am loolu lépp nag di ko mën a faj mooy le 17 novembre incha allah. ñu jox président Bassirou Diomaye ak premier ministre yoo xamante ni alal ji ñu soxla pour indi ko ci gox goxaati indi ko fii ci Touba Gueye alal jooju député yi mën leen ko voteel xam nañ ne xam ngeen enjeu ndax élection présidentielle wane ngeen fan ngeen bokkoon lii mooy le message bi nga xam ni war nañ ko yóbbu tasaare ko fépp citoyen bu nekk xam ni li ñu dundoon ci fukki at ak ñaaru Macky Sall yii ñaanu ñu yàlla dundaat te xool ñu jeexal période politique bi nga xam ne moo ubbeeku ci Sénégal depuis quasiment les années deux mille ñu nekk ci coowal politique ñu jàpp ne nag ñu ngi dem ci juróomi at yu am solo yoo xamante ni président dinañ ko bàyyi mu liggéey wane li mu mën suñu demee ba juróomi at yu mat ku mu ku ku ci d'accord wala ku kontaan nga mën a xam ni kat joxoon nga ko majorité mu liggéey donc ñu ngi appelé ku nekk nga xam ne le bulletin de Pastef li nga xam ne président Ousmane moo ko jiitu moo ci nekk te fotoom nekk ci le 17 incha allah ñu jox ko majorité xam nañu waa Touba Gueye di leen ci topp di ngeen ko jàpp incha allah ñu ngi mu waat vraiment ñu ngi jégalu am nañ ci métit bu réeréeré ci yàggaay bii nga xam ne def nañ ko ñu leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum.